may naa alal jëpp Barcelone kadduy Xavi kii di Bellingham international anglais gaa ñi moom lan tabb mu nekk footballkat bi gën a xarañ naka la ak nu mu demee loolu lépp danañ ci dugg bala ñoo àgg ci loolee ñu commencé nag. xibaar yi daal di njëkke nag kii di safi ba pare door a ñëw ci Bellingham jàmbaari fàkk tëdd gi ma ziar leen bëgg leen sàkko ci yow mii di door a ñëw bu fekkente ni abone abonné ah, ci bile seen Aladji Malick TV sport nga def sab abonnement ndax abonnement boobee ah, dana tax lépp luñ mën di dugal nga mën ko coppati ndànk ma nga noonee geste noble bi nga xam ni Ah, daanaka safi yi minu wiire dàq nañ ko waaye def na sest boo xam ni yaakaar naa ni gone Barcelone yi président ba fanu ne ah, ku leen waxoon loole duñu ko gëm ndax safi yi dafa xëy xamal leen leen ginnaaw bu ngeen ma tëbalee yéen ak ma waroon a fay fukki million d'euros ak ñaar lenn dong laa soxla muy indemnité bi toll ci 3 euh, millions d'euros loolee nag du lu jëm ci man waaye staff bi nga xam ne toll nañ ci juróom-ñetti doomu aadama ñoo sosoon ci moom Brikil yaakaar naa ni loolee bu fekkentee ne dañoo wànne noonu bu ngeen leen ci tuufee rek yaakaar naa ni mën na noo dem seen yoon waaye bu man bu dee man mii condom yaakaar naa ni zéro virgule zéro mooy li nga xam ne maanaam moom safi du ko fa laal kon loolee tamit nekk na mbégte ci équipe bii di Barcelone ndax club ba dana gën a mën a noyyiwaat ndax alal ji waroon a génn indemnité yeeg loolee lépp bari woon na ko bu ko defee gars yi dellu ko ci kees ga Barcelone gi bëgg ci xolam mu mën a réussir moom nag bëgg na Real Madrid ci xolam moo tax mu jógee Borussia Dortmund ñëw foofee dart dart ba ci ñax ma tooy ma nekk ca Santiago Bernabéu gars yi daa bari ñi gi nga xam ne daanaka gone yi jiite football espagnol teg nañ ko ci taabal ji léegi moom moomee di Bellingham moom la ñu mu nekk footballkat bi gën a xarañ ci saison bii ne bu fekkoonte taxawaay boo xam ne am na ko te taxawaay boobee yéen ñi ma diglu mën ngeen cee xool seen bopp ndax lépp lu doomu aadama yi def yaakaar naa ne amul tardement gëm sa bopp ak diggante bi nu tuuti tuuti ak diggante bi lu mu gàtt-gàtt gëmee sa bopp li nga war a doxal lépp di nga ko doxal moom moomee loolee la def moo tax remerciement bi nga xam ne moom it am na ko ci ñi nga xam ne ñooy supporters yi Merengue yi ñoom ñi ko jàppale di pousse muy dem loolu